arbitre bi sifflé na Libidor Ndiaga Dollé Libidor moo leen féete càmmoñ Ndiaga Dollé moo leen féete ndijoor Ndeysaan ñu ngi fii ci journée Djilass Production tey le 2 Ndeysaan le 2 février 2020 bu ñu nee le nga xamante ni xel day dem ci ñu bari. Ndeysaan Libidor moo leen féete càmmoñ Ndiaga Dolé moo leen féete ndijoor waaye bu ñu nee le deux Ndeysaan day dem ci lu bari Ndeysaan sama doom ja sama rakk ba sama séddoo ba muy Ndeye Mbacke Diop séeri Pa Sidi dama koy souhaiter joyeux anniversaire. Ndeysaan Ndiaga Dolé ak Libidor ñu ngi ci compétition bi ba tey Ndiaga Dolé Libidor nday Mbacke dundal lu bare bare bare bari sama lakkal bi Ndeysaan sama séddoo bi Ndiaga Dolé Libidor jël na ko Libidor jël na Ndiaga Dolé Libidor jël na Ndiaga Dolé Libidor jël na Ndiaga Dolé déet Ndiaga Dolé mbot na ko mu bañ Libidor Ndiaga Dolé hey Libidor Libidor fi ko jàpp baax na Ndiaga Dolé mbot na ko bañ na Ndiaga Dolé Libidor Libidor am na ngemb <laughs> cey lamb Libidor fa mu jàpp baax na da koo ndengeñ jàpp ko ca paqataanu ngemb la xëcc na ko lu mu bëgg day mbat wala déet Libidor lu mu bëgg da koy tegal 16 wala da koy arrêté ba ci kaw dóor ci suuf cey lamb Libidor njaga doole Libidor njaga doole yàgg nañ ko fu sori wër na ko ndomba Libidor njaga doole génnaat na ca njaga doole génn na ca njaga doole génn na ca njaga doole njago Dollé Libidor Ndiago Dollé Libidor tegal na ko seet daan na ko Libidor daan ndeysaan Gaskel Jamme ak Boy Faye ñu ngi ci demi-finale yi Gaskel Jamme Boy Faye hey lamb Gaskel Jamme Boy Faye Boy Faye na jëli ko Gaskel bañ na Gaskel jàmm Boy Faye Gaskel jàmm Boy Faye Gaskel jàmm Boy Faye ña nga ca ba tey Gaskel jàmm Boy Faye Gaskel jàmm Boy Faye Gaskel jàmm Boy Faye arbitre bi ndeysaan Boy Faye daw na jël na tànk ba Boy Faye jël na ko Gaskel tuur na ko <laughs> jàppante nañ Boy Faye forcé waat na lu mu nar Gaskel jàmme Boy Faye eh, demi-finale Adr Adrien Senghor tey du yomb Duudu moo ñu fi woo borom Jilaas production ndeysaan Gaskel jàmme Boy Faye Boy Faye da gaskel jël na ko gaskel jël na ko gaskel jàmme Boy Faye gaskel jàmme Boy Faye ñu ngi ci demi-finale bi mënut a yomb gaskel moo leen woon ginnaaw moo ngem moo lu weex li Boy Faye ngeen jàkkaar lool gaskel jàmme Boy Faye Boy Faye gaskel bañ na lu mu wala gaskel lu mu bëgg Boy si géej moom Boy gaskel jàmme ndeysaan Demba borom Italie maa ngi lay siyaar di la souhaiter joyeux ans sa ordonnance ni consultation Demba doomu nday Cheikh Diouf doomu nday Angleterre neex a fekk faja ndeysaan Gaskel Jamme Boy Faye Gaskel Jamme Boy Faye Boy Faye Gaskel jël na ko mu bañ Gaskel Jamme Boy Faye Gaskel Boy Faye Gaskel Boy Faye Gaskel fi jàpp baax na waaye Boy Faye jàppul Gaskel jàpp baax na waaye Boy Faye jàppul Gaskel jàmme Boy Faye ñu ngi ci demi-finale yi mbokk yi Djilass fi woo terrain Adrien Senghor la ñu ne ndaysaan cey yàlla dangay ngay ci làmb ji mbëri di la sotti saafara di la romb di la wis xanaa loolay ay waxkat ngeen nañ leen wis ndax ngeen wax waaye sant yàlla rek koo yaakaar jàmme ña nga ca ba Boy Faye Gaskel Jamme Boy Faye Gaskel Jamme Boy Faye Gaskel na ko déedéet waaw waaw yegg nañ ci suuf Gaskel war na ko ndomba Boy Faye mbaa di nga ci génn Gaskel na ko ndomba was daanuwul wala déet ngemb la tooy na Boy Faye daa daanu na waaw Gaskel Jammeh daan na Boy Faye ndeysaan maa lay nuyu ma ngay yéemu ma ngay lay nuyu maa lay fay ndeysaan gëm yàlla rek a loolu mu wér keroog dama fekk gaal gi nga ñëw ñu ne la fees na bindu amatul nga gëm yàlla leelluwaat say bagage dem ñibbi tey nga ñëwaat fii finaalu loo yëg waaw sant yàlla rek jaam bu ne yàlla dajal na loo loo ni nit eggewu fa warsugu jàmm kenn mënu ko lekk parce que làmb foog naa ne maa ngi def sama preuve daal amul lu mbër lu mbër di def te defuma maa ngi jël ay final maa ngi finalu trophée yi nga xam dem maa ngi jël kon damay sant yàlla daal xam ni maa ngi santaat bu baax a baax a baax a baax bilaay walaay bas ngel jot hey ngel noonu Ngel Jonn ngi noonu Ngel Jonn ngi noonu <laughs> anniversaire may ko ndam la Libidor Gaskel Jamme ndeysaan ndeysaan troisième édition drapeau mbayang lum la cey yàlla ay lamba neex mbokk safoo wasaare lamb lamb ji neex na am na ambiance mbëri bëre nañ ci fulla ak fayda waykat yi way nañ ci fulla ak fayda seetaankat yi dagg nañ biee seetaan ci fulla ak fayda waa Wassare Lamb ñëw indi bu rafet ci fulla ak fayda lépp loo gis fulla Youssou Ndour nee na sax boo koy jaay faw nga am fulla waaye Serigne Bassirou borom mbég meeg mi borom fulla la cey làmb ay lamb Gaskel Jamme Libidor Gaskel Jamme Libidor Gaskel Jamme Gaskel Jamme Libidor Gaskel Jamme Libidor ñoom ñaari xale yi bëre nañ bëre bu deex ndeysaan Gaskel Diamé Libidor ndeysaan Duudu arbitre bi sifflé na Duudu lekkatul naanatul ma ngay jaabante avertissement Gaskel Diamé avertissement Libidor Libidor Gaskel Diamé arbitre bi sifflé waat na Gaskel moo lay woon ginnaaw Libidor ngeen jàkkaar lool Libidor noonu jël tànk ba Gaskel bañ Gaskel jàmme Libidor cey lamb Gaskel jàmme Libidor Gaskel jàmme Libidor temps ba jeex na arbitre bi ne arbitre bi sifflé waan na gaskel jàmme libidoor ndaysaan gaskel moo leen lool libidoor moo leen won ginnaaw gaskel ngàdd daw jàpp ko gaskel jàmme libidoor ñu ngi ñëwee suñu wet libidoor gaskel jël na tànk ba lu mu na tànk ba libidoor bañ na yóbbu na ko ci nit ñi libidoor bu ñàkkee nga ñàkk làmb ji Gaskel Jammeh Libidor Libidor daw na jëli ko Libidor na jëli ko Gaskel bañ na Libidor Gaskel Jammeh ndaysaan ci fi woo ndaysaan ci njiital nga borom Djilass Production mise un million la le 2 février arène Adrien Senghor ndeysaan ñaari xale yaa nga noonu ñoo finaalu dox ci diggante gaskel jàmme ak libidoor libidoor jël na tànk gaskel gaskel bañ na jëlaat na tànk ba gaskel jëlaat na tànk ba lu mu nar gaskel jëlaat na tànk ba lu mu nar libidoor bu génnee lamb ji jeex bu génnee lamb ji jeex jël na deux avertissement bu génnee lamb ji jeex gaskel loolu la xam moo tax mu bugg koo puus Libidor Gaskel Jammeh Libidor Gaskel Jammeh Libidor Gaskel Jammeh ndeysaan Libidor Gaskel Jammeh Libidor boo génnee ñàkk làmb ja boo génnee ñàkk làmb ja génn na Gaskel éliminé na trois avertissement Gaskel jël na ko Gaskel daan